mbokku téléspectateur Tawhid TV dal leen ci euh, xibaar yi bokk na li ci gën a fës ñu waxtaanee ko euh, mooy rek ab méga bi nga xamante ne euh, coalition Yewwi Askan Wi def nañ ko fële ca Parcelles Assainies foofu nag mbooloo mu bëri ñëw wuyu leen ca noonu tamit ki nga xamante ne moom mooy njiitalu Pastef di Ousmane Sonko yëkkati fa ay kàddu jëmale ko ci wàllum élection 2024 laata muy woo ndaw ñi tamit ñu daal di dem fële ca tribunal ngir. daal di fekkee procès diggante moom ak ki nga xamante ni moom mooy Mame Mbaye nañ ci dikk ci biir xibaar itam ñu wax li nga xamante ni moom mooy ñaar fukk ak ñetteelu édition bu foire internationale eh, bi nga xamante ne dañuy jagleel wàllum eh, nag eh, li nga xamante ne moom mooy agriculture ak ressources animale exposants yi nag fu mu toll ni nee nañu wàllum élevage Sénégal macha allah mu mel ni nag jëm na kanam bu baax a baax donte am na ay mbir yu nga xamante ne ñoo ngi koy sàkku ci gouvernement bi ngir résultat yi gën di bari bokk na euh, ci wàllum aliment du bétail prix bi euh, gën a yomb waaye tamit lu jëm ci wàllum wérgu yaramu euh, li nga xamante ne moom mooy mala yi ñu daal di ci gëstu bu baax a baax loolu mu ngi am nekk ci FIARA bi ñu wax itam ci wàññite njëgu location bi daanaka lu ëpp ci ñeenti téeméer ci ay plante tegu ci kaw tableau commission bi commission commission nationale buy saytu lépp lu jëm ci wàllum topp ku wàññite yooyu leen nag njëg euh, ki nga xamante ni rek moom mooy xam-xamam màcc ci wàllum yoon na muy doxee euh, dina si dellu si ci biir euh, xibaar yi xamal ñu ana yoon yoon la ñu war a jaax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy locataires yi bañ cee gaañu loolu yëpp ci biir xibaar yi lay doon asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ci xibaar yi nañ leen ko waxee woon rek bokk na ci ab meeting bi nga xamante ne euh, lii di coalition Yewwi Askan Wi def nañ ko fële ca Parcelles seni rawatina ca terrain ak APS euh, foofu nga xamante ne nag moom mooy leader bu euh, Pastef di Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu ci jëmale ko ci wàllum élection. 2024 euh, di élection présidentielle fu ñu war a tànn njiital réewu Sénégal euh, ca noonu tamit nee na euh, gisuñu kenn ku leen di tere ñu nekk candidat waaye tamit ci lépp lu jëm ci wàllum procès bu dox diggante moom ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Mbaye Niang bëgg rek képp ku nga xamante ne bëgg nga nga dem teewli boobule procès ñu teewlu ay kàddu am. dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dem. Macky Sall nee na te yaakaaru lu dul justice magistrat yi moo waxaat leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky dalaa jox xaalis wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat kooku nekkul candidat yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu nekkul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat yi leen Sénégal kenn fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu waaye comme nag da ngeen di jaay ni soo waxee ñu ne force restera à la loi la loi est la loi du peuple que donc force restera au peuple sénégalais. le 14 def nañ suñu meeting newoon nañ leen lañ ko def ci nii wala ci nële le 15 manifestation sur tout le territoire national le 16 manifestation sur tout le territoire national dama teel leen dànkaafu nag ñoom kenn du ma tànnal man ban yoon lay jaar loolu loolu buñ ko buñ ko dugal seen bopp fu ma neex lay jaar ci Dakar du ma neexee laay daagoo dootuma ko nangu te le nag c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu leen droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique la kenn amul droit ne nit ñi dañu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de. parce que paraparaxe yi ñuy def jaru ko récuser nañu juge bi parce que juge bi mbokk la ci ñoom xarit la ci ñoom li tax ñu tànn ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récuser nañ ko na teg dossier bi ñu désigner beneen juge bu objectif le 16 mbokk yi yéen ñëpp na ngeen teel a xëy ñun ñëpp ñu ànd daagu dem tribunal Euh, ba tey rek ni ñu ko waxee woon ci wàññite njëgu location bi gannaaw bi nga xamante ne décret bi génn na ñu tàmbali ko ni benn fan ci weeru mars boobu ba léegi nag mu am yenn coow yi nga xamante ne nag jib na yu dox diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy moom kër yi ak locataires yi ci ñi nga xamante ne nanguwuñu ko wàññi euh, daanaka lu ëpp ci ñeenti téeméer ci ay plante tegu na ba noppi looloo tax ñuy ànd ak ki nga xamante ne jurist la. xam-xamam màcc ci yoon na muy doxee eh, ki nga xamante ne moom mooy Maxa Diaw dellu si waat ci ana yan yoon la ñu war a jaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy locataires yi ngir daal di jot ci seeni droit ci mbir mi nu mel ñu teewlu ko. waaw ñu jàpp depuis le premier mars deux mille vingt gouvernement jël na dogal si xaatim décret wàññi loyer yi alors bi mu ko wàññee ba léegi depuis loolu dañu constaté que ni dafa am ay problème ndax bailleur yu bëri dañuy bañ jël seen location léegi nag aussi il faut di rappeler que ni gouvernement bi daf jël na ay mesures mesures yi mooy lan mooy bu fekkee ne da nga dem ci bailleur di nga fay mu bañ jël fay bi yow mën nga ko jël xaalis bi nga ko war fay bi nga envoyé ko ko par système de transfert d'argent maanaam lu ñuy wax ay Orange Money Wave wala Kpay et cetera yow mën nga utiliser moyen boobu nga nga fay bu fokkee aussi bëggoo am na beneen moyen aussi mooy mën nga dem caisse de dépôt et consignation nga jël huissier jaar foofu tribunal jox la benn kayit nga dem dépose ji ko loolu yëpp day wan ne ay xeetu preuve la yi nga xam ne mooy war ni yow fay nga waaw bu boobaa nag preuve yooyu chaque mois nga def noonu def noonu donc ëllëg euh, bailleur bi du la mën a dara waaw donc loolu mooy wan ne yow mii nekk nga ak yoon ak fay nga bailleur bi waaw léegi nag lu ñuy constaté mooy loolu xaw na métti tuuti parce que euh, bailleurs yi également dañu gis ni bon bes bi arrangé wu leen moo tax ñu procédé woo noonu mais comme que décret comme que guvernement moo jël xaatim moo jël lu ñuy wax décret wàññi affaire yi ñu ñëpp dañu war a appliqué wu décret nag acte la bi nga xam ne mooy ñëpp dañ ko war a respecté bu ñu ko dugalee rek ñëpp ko war a respecté buñ ca noppee dañuy waxtaanee li nga xamante ni rek moom mooy FIARA ñu ko amal fële ca CICES ci lépp lu jëm euh, ci wàllum nag ressource ak wàllum agriculture ak ressource animale euh, wàllum élevage nag mu nekk pàcc bu ñu taamu waxtaan ci ak benn exposant nekk ab éleveur ci gis-gisam nag euh, Sénégal daanaka def nañu ay jéego yu rëy rëy ci wàllum élevage moderne waaye nag gàq-gàq gi mooy rek gouvernement bi war na def kemtulaay kàttanam ba mu yombala leen njëg yi jëm ci wàllum aliment de bétail ak wérgu yaramu euh, mala yi loolu dina nekk lu leen xettali bu baax a baax bañ ca noppee itam ñu jox leen suuf yi nga xamante ne mën nañ fa béyal euh, ngir mala yi mën faa rek daal di lekk loolu dina tax ba lépp lu jëm ci wàllum production ci wàllum meew ak ci wàllum ndawal fii ci biir Sénégal mu gën a sakkan ñu teewlu reportage bi la mu jóge ca Pout fale ca région bu Thiès ngir ñaw daal wane si race yi nga xamante ne yor na ko ci wàllum nag ak ay produit am. Euh, am naa fi Girolando euh, am naa fi Zerzez am naa fi Holstein am naa fi Normande am na fi tamit Gougéra. pour rek daal di am production bu baax ci wàllum meew yi leen nag nag war nañu lekk bu baax a baax bu ci nekk daanaka huit kilogrammes lay soxla ci wàllum lekk ci bés bi nekk. waaw parce que bu dee Holstein bi mu ngi am euh, vingt ba vingt cinq litres ba trente litres par jour bon sans dépend ci condition bi mu ni mu ni muy dundee quoi ci lekk bi affaire yooyu noonu bu dee jus hollandais yi aussi itam euh, quinze ba vingt litres bon. Zerzes yi ñu ngi ci 10 ba 15 litres moom tamit xam nga. te gis nañ ni aliment de bétail cher na lool loolu moo tax seen am-am day daadi di wàññeeku bu baax a baax ñoom ñi di sàmmkat yi. aliment fi ñu toll nii bon saako laitière bi mu ngi toll ci ay côté euh, dix neuf mille côté yooyu. par euh, une tonne par par semaine une tonne par semaine. Euh, une tonne bi bu dee 40 kilos yi 25 euh, sacs la. looloo tax ñu ci bëri ñuy daal di yokk seen loxo bu baax a baax ngir daal di améliorer lii di race yi bokk na sax ñuy daal di jéggaane ci bitim réew ay nag bu mel ni Gougéra reproducteur bile. waaw Gougéra bi waaw boobu moom viande la ak génétique léegi ñooñu moom suñu mbokku éleveurs yi ñi nga xam ne ñoo yor nagu local yi euh, baax na ñuy am ci. pour yokk seen euh, quantité euh, seen seen amélioration de races waaw moom moom loolu mooy fooram moom tamit parce que tey bu fekkoon ne doomu góobara bi mun nga ko jaay trois cent mille bu amee doom ak gouchera bii nii mun nga ko jaay cinq cent mille ba huit cent mille ba moins de un million ndaw ñi ñu ngi dugal seen loxo ndànk-ndànk ci wàllum élevage waaye nag bu ñu bëggee mu gën a jëm kanam war nañu rek daal di jox ay suuf ñi nga xamante ne ñooy sàmmkat yi ngir ñu daal di fa bay li nga xamante ne jur ji mën nañ ko lekk ba noppi itam Euh, prix yi ñu gën ko mën a wàññi euh, ci wàllum jaayu aliment de bétail seen wàllu wérgu yaram yi tamit ñu daal leen saytu bu baax a baax euh, bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy sàmmkat bile Amadou Ba sax gis-gisam mooy mu daal di ubbi ab ferme boppam gannaaw ba mu ci nekkee ñaar fukki at loolu nag pour mu am faw mu am benn financement. ñu daal di waxtaanee ci wàllum entrepreneuriat ndaw yu bëri guddi yi nag ñu nekk ci ngir mënal seen bopp donte am xëy jafe looloo tax rek dañu tase ak ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Manga moom nag bokk na ci li muy yëngu wàllum jaay ay crêpe loolu nag gannaaw bum ci amee expérience bu bare bari mu ci yëngu tamit ci ay crêpe yu neex yoo xam ne moo koy defal askan wi ngir tamit koomu réew mi gën a jëm kanam ñu teelu reportage bi boobule Ndeye moo ñu ko defal ànd ci ak Abdoulaye Wade. ci Sénégal nguur gi dafa dooleel lool wàllum entrepreneuriat tax na sax kuréel yi nga xamante ne moom la dénk ndaw yi da leen di taxawal ay projet wala sax ay financement ngir ñu gën a mën a gunge ndaw ñi ci seen ay mbëbët du ci mel ni Ibrahima Monga moom bi mu dajalee juróom-ñaari atu expérience ci la commencé dugg ci yëfi boppam ñu tàggat ko ci wàllu crêpe mu ciy liggéey di ci am li mu am. mooy naan defee inspiration à la pointe des Almadies Euh, professionnel ex euh, exceptionnel professionnel à la crêpe bretonne des Pointe des Almadies euh, depuis 2013 laa ko commencé laa ko jàng 2013 ba 2022 ba 2022 maa ngi ñoom ñoo ma formé ñoo ma jàngal si wàllu crêpe fii crêpe bretonne à la Pointe des Almadies ñoo indi crêpe fii Sénégal donc man foofu laay formé ñoo ma formé ñoom ma téye depuis 2013 ba deux ñoo ma formé donc lépp lu mu les inspiration wàllu crêpe am naa ko si ñoom ñoo ñoo ma formé ñoo ma sant sant naa leen gërëm naa leen ba tey man maa ngi si ñoom ñoo ñoo ma formé si wàllu crêpe bi kon tey jii nii boo ñëwee ba si crêpe bi ba ma jot ma ne ko ah dama bëgg a investir pourquoi pas dama investir sama crêperie bopp ma daal di ko dem dem dem dem dem dem ba yàlla dogal ma nii ba ma commencé créer nii taabul bi nii. moom nag mu taxawal mënu goo xamante ne ni dafay laal crêpe yi nga xamante ni dafa bëgg suukar wala yi nga xamante ne xorom lañ koy defaree bu ci ne rek ak njëg ji nga xamante ni moom lay laaj moom nag liggéey bi métti na ndax bagage yi muy jëfandikoo bu ci ne am na yokkute bu mu ciy yëg. man am naa crêpe sucré am naa crêpe salé am naa Nutella am naa crêpe Oreo am naa crêpe Kinder am naa crêpe au miel crêpe sucre beurre. crêpes sucre beurre citron et tout il y a beaucoup de euh, aussi on a jambon fromage œuf ketchup jambon fromage sauce béchamel jambon fromage sauce champignon jambon fromage sauce béchamel jambon fromage œuf poulet crêpe poulet fromage poulet la produit daal seer na daal produit seer na wàllu fromage yi dafa seer wàll boo ñëwee meew bi dafa seer farine aussi dafa seer produit yëpp dafa seer mais macha allah ñu ngi si centre bu baax di liggéey ñu xool lan lañ ci mën a gagné ñun tamit lu mu bon bon ñu mën a am lu ñu gagné am suñu bénéfice mais ba tey moom lañ nekk di ko inspiré di góorgóorlu bu baax si liggéey bi. la muy jaay nag fële ca lycée bu Dabaax élèves ya moom bëgg nañ ko lool ndax jàpp nañ ni affaire bi set na sell na waaye it neex gi mu ngi ci bu baax. waaw macha allah saa li mu jaay neex na jar na yomb na ko c'est accessible à tout le monde. jeune bi tamit clean lépp clean vraiment 10 sur 10 quoi. Mm-hmm. ginnaaw ab formation gu métti Moustapha nga moom gëm na boppam te it mu ngi fekk si ndaw yu bëri yi nga xamante ne ni dañoo yëg seen bopp ci entrepreneuriat ngir rek mun a ñoom itam indi seen wàll ci koom-koomu réew mi mu nekk nag ay crêpes yu muy jaay fële ca lycée bu Dabar yu set sell neex te mu koy def ci bëgg-bëggam. mbokk yi liñ leen andi loon ci xibaar ci Tawhid TV ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu di leen jox daje euh, ci yeneen jotaayu xibaar sur la chaine de l'espoir la Tawhid TV.